Musa Abdou Diop jébbal nañu ko ndombol tànk yi délégué de quartier bés niki tey dina daal di dugg ci fonction bi nga xamante ne moom lañ ko tabboon ci fan yi ñu weesu ci ginnaaw Rail Nord ci dibeer bi la askan wu bëri ak it autorité yi daal di ñëw ngir rek mën koo teg délégué de quartier bu yees fii ci ginnaaw Rail Nord gannaaw bañ ko joxee drapo délégué de quartier ba noppi mu daal di jël kàddu ngir woo askan wi yëpp ñu wuysi ko ci liggéey bi nga xamante ne moom moo koy xaar. jafe ci kaw bu ma ko bu ma ko accaparé mais bu ma ko décentralisé mën na yomb. maa ngi woo ñëpp président ASC yëpp képp kuy personne ressource ci ASC rek maa ngi lay woo pour nga ñëw jàpp ci affaire yi. bu ñu ma taamul woon sax taamu kenn ci sama kër rek mbégte la war a doon waxantuma laa mu dal ci man kooku xol bu sedd la xol bu sedd guy la waaye nag li ko waral mooy waa dëkk bi ñoo baax rek dëkk bi ñoo baax rek ñoo baax wax yàlla daal aw mënu ci am lu dul contentement rek contentement rek laa ci mën a bâche bi jël koñ bu ne mbedd mu ne ñu jël fa ay nit ne leen yéen jàppe leen seen bopp comme ay délégué officiel dafal leen ay badge yaakaar naa loolu buñ ko continuer gën ko yaatal yorin bi dina yomb ndey réew bu bokk moomeel bu ginnaaw raay noor ki di Valdiodio Ndiaye moom it tamit kenn demul mu des ndax teewee na bés bi ni mel. sur ce qui se passe au niveau des lépp loo xamante ne dañ ko bëgg a tënk lu jëm ci wàllu développement ñoom moom. mu ànd ak moom ci loolu pour mun ko liggéey parce que quand on parle d'un délégué

donc vraiment sentiment de joie la am de fierté euh, vis-à-vis de euh, Abdou Diop. ci jamono bañ ko doon dalal askan wi di ko ñaax ngir rek mu mën a tëddee njaaxanaay waaye it dimbale gox bi mën a jëm kanam. suñu collègue délégué de quartier Abdou Diop mu nekk un jeune qui est très engagé pour la commune euh, d'abord mais aussi quartier lii comme liñ koy seede dafa yàgg bay waaram lu jëm ci inondation mu ànd seeg nijaayam bi nga xam ne yàlla na ko yàlla defal jàmm muy Pape Gueye nga xam ne idole la woon Ama Gueye bi aussi nekk référence kon nekk nijaayam kon lii bett ñu woon ci Abdou Diop euh, délégué de quartier dëgg lu muy lu muy muy sol la waaye doxewu ko ndax yekk na nekk na un serviteur nekk ku yàgg sonn ngir askanu ginnaaw raay Nord mais tamit tey ci quartier Thiaroye Grand Thiaroye deux bis moom vraiment amal nañ ko njukkal li tax ma ne ko amal nañ ko njukkal depuis 2005 inondation yi man laa ko ràññee mu ñëw ci collège yu délégué yi nekkoon intérimaire comme tey dañ ko war a installé boobu mu ngi nekkoon intérimaire il n'était pas légitime il n'était pas légal mais il était toujours au service de la population kon tey fierté lañ ci am kontaante lañ ci am ñun suñu collègue délégué mu invité ñu tey en tant que aussi collègue vraiment fierté lañ ci am di wax tamit xëyu ndaw yi Abdou Diop ngir yàlla lu ñëw muy bàjjanu gox muy xëyu ndaw yi muy bourse nañ xool ñi ko yeyoo nga jox leen ko xale nga yàllaa la jiital fanaan nañ fi doon nañ ànd lii yàllaa la ko jox jaare la ko ci monsieur meer ak waa dëkk bi di la ñaanal mu lu ñëw muy bourse ñu ne la fukki nit xoolal ku ko gën a yeyoo muy xëy xoolal ñu ko gën a yeyoo man suñu kër loo fa indi baalu ma la bu fa indi dara waaye lu ñëw joxal ñëpp man damay politique waaye politique uma pour man. koy defee ak euh, tous les maires yi fi nekk ak tous les délégués yi fi nekk Randour mhm. donc dañ ko accompagner saa ñu soxlaa donc dinañ ko suñuy bunt muy n'importe quelle heure n'importe quel donc loolu laa ne daal su ñëw donc naa ko jotali ki nga xam ne mooy délégué bi di féliciter ak di encourager délégué Abdou mi nga xamante ni moom la ñuy installé tey di ko ñaanal yàlla jàppale ko ndax ku yàlla jàppale rek moom moo fi nekk kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla jàppale ko li nga xamante ni dugg na ci yàlla oyofal yen bi ci kawam macha allah moom ak estafam am nañ ci yaakaar ndax jeune la. te gis nañ ne jeune moom mooy yor doole ji am na xam-xam bi ak estafam kon bu góorgóorloo tuuti yàlla dina ko jàppale. de passage ñi ngi félicité waa Grand Thiaroye bis bi yëpp di wax ni projet yi nga xamante ni wax nañ ko fi yàlla na leen si yàlla jàppale ba nga xamante ni dinañ si am. yi am mbégte ak kontante ci fekkee installation délégué abu Diop mu nekk installation ba am solo euh, parce que wax dëgg fa yàlla soo ñëwee da nga gis na dëkk bi yëpp daje nañ fi mag ñaa mi ngi fi il y a toutes les autorités étatiques ñu ngi nii toog en commençant par monsieur le maire il y a le représentant du commissaire et il a aussi les imams et l'ensemble de la population ah loolu nag lenn rek lay junj mooy li ma wax léegi ne ñaar moom moo tax ñu installer un délégué de quartier te Abou Diop wax dëgg yàlla macha allah un délégué de quartier doit être légal et la légalité le maire moo koy def mën na toog biir mu signé wane ne kii mooy il doit être légitime et Abou Diop vraiment euh, délégué la boo xam ne il bénéficie de cette légitimité ndax dëkk bi yëpp fi dajaloo ne ko yow yaa ñu doy je pense que ne il est légal et il est légitime kon liggéeyam war na yomb ndax nit ñi buñ la leen jiituñu looloo gën a yomb tey ma jiite leen te moom waa dëkk bee daje ko di nga ñu jiitu ah, autorité bi aussi en tant que maire aussi ne ko doy nga ma je pense que ne loolu euh, pour liggéeyam mission bi yegg dana yomb. ndax tey jour boo xam ne jour bu historique la. ndax Grand Thiaroye 2 Maguette Diallo moo ko yoroon euh, plus de vingt années bi mu gaañoo ñu toog trois ans yoo xam ne amuñu woon délégué de quartier du joob lañ jëloon de manière intérimaire tey ji yàlla dogal ñu war ko installer officiellement devant l'autorité le maire ak la police le commandant et les populations administrées yi donc sentiment bi ma mooy sentiment de satisfaction dans la mesure où man dama bokkoon ci ñi ko doon gunge depuis que mu nekk intérimaire pour la promotion des jeunes les délégués de quartier dañu war léegi di ko jox ndaw ñi su ko defee ñu inscrire dans la durée dans dans le futur donc tey sentiment la boo xam ne ginnaaw raay tey euh, gëm nañ ne bis la buy commencer avec des projets. Nous espérons une franche collaboration avec la commune, qui est notre premier partenaire. Donc d'ouvrir ses portes, d'écouter les populations, d'écouter aussi euh, les propositions que les membres du comité de quartier vont faire à l'endroit des des différents projets. délégué ci quartier nag dafa nekk loo xam ne lii nattu la. Mhm. nattu la ndax koo xam ne kii yilifoo sa ñi la fi teg yow yaay seen jaam. amul heure boo xam ne bii nii soxna la nga war a ubbu da dem ba tëdd nit am soxla ñëw fëgg la nga jóg heure bu ne xale bu réer wala dox boo xam ne bii dafa ñëw ci mbedd mi amul fu muy fanaan dañ koy indi sa kër mu def fi fanaan. sant waa waa quartier bi yëpp xëy na bi moo fees ba wax yi mën na bañ a sori mais mënu fi nekk di lim quartier bi yëpp cat ba cat maa ngi leen di sant parce que ku gis ni élection yi demee. Mhm. nga xam ni quartier bi moo wax kon mënu nekk di tudd turu kenn. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp beneen bi topp mooy sëñ Xaadim wax nga ko léegi man dama la wax ni fu njariñu quartier bi nekk dama koy jëli fu njariñu quartier bi nekk dama koy jëli danga ma may formation ma jox ko jigéen ñi bu fekkee nag góor ñi am na lu ñu leen war a former ngi taxaw di xaar ci njeexteel cérémonie bii de population yi nekk ci quartier Abdou Diop ñu daal di wone ab mbette waaye it fas yéene gunge seeni délégué bu yees boobule ngir mu réussir ci mission bi koy xaar.